gàmm gi kay man maa ngi waajal ak sama sëriñ bu baax bi moom Nous allons faire comme d'habitude recevoir les hôtes et faire de bonnes choses pour euh, leur séjour ici à Touba puisque moi et mon marabout nous allons faire euh, comme à euh, faire la, de la bonne restauration pour que tout le monde soit rassasié puisque c'est la nuit du prophète comme il l'aimait lui Serigne Touba ay Serigne Fallou. togg sañ reer yu beex baax daal bégal Mohamed borom mag gàmmu gi. waajal bis rek ah. je vais pas changer de manière de faire puisque je vais continuer à faire comme je faisais durant le magal recevoir les hôtes et faire de la bonne cuisine pour eux. ni ma ko defee ci magal gi rek koy defee. maanaam ni nu ko sëñ bi ni nu ko sëñ bi waxee rek parce que yéene waajal gàmm. nous allons faire comme l'indique notre cher guide Serigne Touba. qui nous dit de laisser nos lits et nos maisons pour les autres. Et c'est ce que nous allons faire sans avoir d'arrière-pensée et donner à manger à ceux qui viennent. nun ko mënee ak nun mënewul nañ ko def. defar ba mu baax nag defar ba mu baax nag. pour ce gàmmu je ferai de bonnes choses du bon lait du bon poulet rôti mais aussi de la bonne boisson pour que tout le monde soit content et que le prophète même soit content. dafa leen añ bu neex dafa leen reer bu neex jox leen boisson ñu naan